aousubillahi mina seytaani rajimi bisimilahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonantam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi fu waay mën a nekk ñëw leen di ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér ginam di ko sàkku ci rawatina yéen ñu abonné ci Daaru Salaam Sibaaw Daaru Salaam Sibaaw dana seet bu la seetalee wax la sa sarax wala wax la sa cangaay foo ma dem defe ko fa nga dem defe ji dañoo nekk na ci période examen xam naa defal nañ ci ñaari vidéo bi mooy ñetteel bi bu ko defee nag xamaa ci la yem ci ñetteel bi hmm, muy am solo nag képp koo mën a def daal na ko def bii tey dox ci examen bii nag moom lu ci yéeme yéeme la lu ci yéeme yéeme la gis nga ko ni nii nga koy bind rek lu ci yéeme ci wàllu examen la dangay bind bind bismillahi rahmaani rahim yi laa xawla wala xawata illa billahi la aliyil asimi li ngay bind ba pare nga dagg xaatim bi ni nii nga koy daggee gis nga ko juróom-ñetti kër la deux quatre six huit dix douze quatorze seize bunt la gis nga ko xaatim bi seize bunt la léegi ba nga ko bindee defee dagg xaatim par seize bunt yi gis nga ko mu ngi nii nii lay demee lii nga ci bind wasaabiquuna wasaabiquuna wasaabiquuna wasaabiquuna wasaabiquuna nga am ñeenti kër fii léegi nga jël bi bii wasaabiquuna wasaabiquuna nga jalal bi wa wasaabiquuna wasaabiquuna mu jeex ñooyu ñeent yi moo di gis nga bii ci digg bi nga commencé fii jëm nii lépp wasaabiquuna lay doon bi wasaabiquuna lay doon ñaar yii ñaar yii wasaabiquuna lay doon boo commencé nga dikk commencé waat fii nag bii nag doo bind wax asaabiquuna ngay bind rek asaabiquuna asaabiquuna asaabiquuna gis nga ko ba màgg boo paree gis nga ko bii asaabiquuna bii gis nga ko bii saabiquuna ñaar yii saabiquuna saabiquuna gis nga ko leer na kon bii gis nga ko saay bu xona saay la doon du am wax kon dèjà ñaar yi bii nga fi nga commencé ci kaw ci sa loxoom da jor mooy am wax saay bu nga tegaat ci bi ñaar yi mooy am wax saay bu xona ñaar yi dañuy am wax saay bu xona léegi nga dikk commencé waat fii nag ca sa loxo càmmoñ ca suuf muy wasa muy asaabiquna asaabiquna asaabiquna ngay bind boo bindee asaabiquna ba mu mat ñeenti kër yi da ngay commencé waat nag dikk fii bind asaabiquna fii gis nga ko nga bindaat fii as-saabiquuna mu jeex loolooy xaatim bi kon leer na léegi xaatim bi nag ni nga ko xool nii nga ko bind rek ni wala ko bind lii na nga ko bind noonu boo ko bindee ba pare nag ñaar lay doon ñaar lay doon ñaari xaatim lay doon benn bi loxo bi muy bindee moom mi kii examen ca la koy takk bu solee mu mu gudd nag mën na ko def téere mu takk ko ca kaw ca mbagg ma waaye laa fu mu ko mën a takk ci loxo bi baax na waaye loxo bi mu yor biig bi ko bindee moom la fa la koy takk bu dee loxo càmmoñ lay binde loxo càmmoñ bi ca la koy takk bu dee loxo ndeyjoor lay binde loxo ndeyjoor ba ca la koy takk boo defaat beneen kon ñaari xaatim lay doon beneen bi boo ko defaatee da koy sangoo bu ne suba lay def examen bi la koy sangoo kon loolu leer na bu ne suba lay def examen bi lay sangoo beneen bi ci bi mu war a sangoo bi ci des nag da cee desal bi muy sangoo da cee desal ca ndox ma mu def ko ci bitéelu Evian di ci raayu saa bu xëyee leer na loolu leer na ñax na léegi kon gis ngeen ko xaatim baa ngi noonu ñaar lay doon benn bi danga koy takk ci sa loxo bi ngay bindee yor sa big beneen bi da nga koy def saabara waaye da nga koy sangoo bu ne suba la eczéma bi moo ngi koy sangoo nga desal ci am ndox la des ca ndox ma nag da nga koy def ci butéelu eweer de ci raayu say loxo ak sa kanam saa xëyee kon lu ci yéemali ci wàllu eczéma nag képp koo xam ne la ngay def ci wàllu këyit eczéma la wala concours boo ko defee ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala da nga ci am lu kawe kawe sa njort ci wàllu eczéma bi soixante euh, ci wàllu extra bi loolu moom lu ci yéemale bii nii moo tax gis nga ko kuy njëkkante wa saabiquuna sax da ci Yàlla wax kuy njëkkante kuy njëkkante wa saabiquuna saabiquuna ulaaikal muqarrabuuna fii jannaati na'iim aay bi tëddee waaye gis nga xaatim ni ko daggee mooy mooy wa saabiquuna kon lu ci yéemale te am na ci solo loolu masala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu